waaye gis nga li fi xew de toog naaj bi tàng ah. toog nañ fi lu yàgg bëgg a julli kenn xaw ma xaw ma dañuy politique xaw ma lu ñuy def julli dafa wees dafa wees ah, julli moo wees bu yàgg nit ñi war a julli bu yàgg nit ñi war a julli baax ñu politique bare julli boo yàgg tisbaar dafa passé mën ta ànd ak euh, politique quatorze heures demi kenn du ko julli tisbaar mu taar ba sax lee mu jéem nga ne booy président bi moo fi nekk jullee guñu heure bi war a mën a changé yàlla yomb. bi julli bi dañuy politique rek. mais président bi indi gërëm jumaa bi ñu ko. yéen a ngi doon barke yàlla yéen. ah da ngay wax. gaa yi dañuy julli rek dañuy ñibbi ah nit ñi du ñu ñibbi. heure julli jot na bu yàgg jot na bu yàgg ñu war a julli bu yàgg nekk bi toog rek di politique toog politique bi ñun dañoo sonn ñun julli moo ñu leen nii. ay ah. président dara indi moom waaye ñu julli raw bu yàgg. julli waxtu wax waxtu julli waaw. ah mosu fi am moom wax dëgg yàlla en tant que président si jumaa ji def affaire de polémique loolu c'est la première fois dans la vie. le problème bi mooy waaw voilà noonu la ñi léegi ñi dañoo yeewu kenn mënatu ne rey. nit ñi léegi xam nañ ne yàlla la ñu jublu soo fekkee ne yàlla def na sàkk na la sàkk lépp ba ne allahu akbar kay loolu la ñu koy lool la ñu war a war a def ba ñu balaa mos taan si jumaa ji waaw taan si jumaa ji loolu moo fi am bi fi Macky Sall ñëwee daal la am lu muy def ba waxtu julli jot dana koy bàyyi sa kër a jumaa fi ko yem Macky Sall mooy mujj ndax ñun yàlla nañ yaakaar def si Macky Sall waaw xoolee li diine wax diine dafa wax sawal xam nga instant bi jàpp nañ daal waxtu bi jeex na ndax sawal lan la wax ci julli bu fekkee tey julli deux heures la du garaaw mais bu fekkee julli jumaa la saa kan, ni waxtu yi dafa jeex bu dee saa nga julli ki ne boo jullee sa tubaar doo nga am waaw moo tax ñi ni ñëpp fi toog di xaar mooy saa xul yëpp salaat kon tas doo fi aar la wax vraiment julli julli julli jumaa moo ñu indi woon waaw toog nañu julli nañu toog nañu ba 3 heures kenn julli wu kenn julli xamuñu loolu pour lan la deen yàllaa tax ñu waaw ah, loolu yëpp daal li ñu politique ñun politique wu ñu. wala waxtu julli bi 15 heures doon ba ay demi julli wuñu saa yi ñëpp ñibbi ne ñi nga xam ñoo ko encadré ñoom ba heure julli jot dafa war a bàyyi lépp ñu julli ba fa doog a delloo ci waxtaan bi loolu la war a def waaw ku doon xam ne ñun Macky la ñëpp bëgg waaw ndax ñun Macky la ñu waaw ñun ñëpp Macky la ñu soxla suba ba ngoor moo ñu ko jox bourse bourse familiale lépp moo ñu ko jox waaw ñu julli ba tisbaar maam yàlla pass ñu toog ñu doog a waxtaan ñu ñëw ba heure julli bi rek moo ñu mel dañuy jaamu yàlla ba pare door a ànd ak mag ànd nañu moom nag waaye dañuy jaamu yàlla ba pare door a ànd ak

mais wax dëgg fa yàlla moom tabaarikàlla macha allah tey moom xaw ma kan la waaye moom tey daanu imam bi moo daanu Macky Sall deful dara nag képp ko wax Macky dara tooñ imam bi moo daanu parce imam bi moo waroon a xutba julli loon nit ñi nit ñi julli parce que Macky Sall dem taxaw si mimbar bi daan moo koy xutba